barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. yàlla defal jàmm ci suñu réew jàmm joo xam ne daañ xam ne jàmm la yal na yàlla yokk am am bi yokku man-man bi ñu ngi ci ay. bés yoo xam ne ni Sénégal ñi ngi jaar ci ay bés yoo xam ne ni ñoo am expérience bu mel noonu ku nekk ngi tiit waaye na ñëpp delluwaat ci seen xel ñëpp xam ne Sénégal ñun ñëpp ko moom bu baaxee ñun ñëpp la baaxal bu yàqoo it ñun ñëpp la la yàqul te ku yàq sa dëkk dëkk koo dem du la fa bàyyi waaye loolu responsabilité boo xam ne nii pour ñun ñëpp la ñun ñoo ko ñun ñëpp ñoo ci ñoo ko xeeyoo ku nekk rek am nga ci part de responsabilité ku nekk rek li nga ci man ci lu baax def ko ku mënul lu may wax lu baax wax ko ku ci mën a yokku wax lu baax def lu baax def ko ku mën a ñaan yàlla def ko bi ma mujjee noonu sax la ñëpp war a def ndax ñaan yàlla moo man li nga xam ne nii li jaam yi lottu yëpp ñaan yàlla mën na ko ñu ngi ñaan yàlla ci barke yéen jal barke alquran ji barke hadis rasulillahi wa sallam barke Cheikh Tidiane barke Mawlana Cheikh ibrahim radhiyallahu anhu yàlla defal ñi jàmm ci suñu rew ñi ngi nuyaat kilifa yeb ñi tuddu ak ñi tuddu ñi ngi nuyu imam Muniru sar ak mbollem kilifa yi nga xamne ñëw nañ góor ak jigen mag ak ndaw allahuma salli ala sayidina muhammadin fatixi lima ugliq الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير